أيس مني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu borom ginnaaw bu ñu mayaate ñu fekkee weeru tedd yi nga xam ne moo di weeru safar safar di weeru yi nga xam ne moo ëmb bis bu màgg boobu nga xam ne moo di màggal tubaa fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar ngir jëm si waajtaay wi nag mboolem seen i activité safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seeni i daara ak seen dayra ak mboolem safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seeni gox ak seen i gox-goxaan seen seen YouTube Tawfekh Production di leen si gunge lépp jëm si waajtaayub màggal ak Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu dëgmal moo xam ay reportage couverture médiatique ak mboolem activité yi nga xam ne moom ngeen def yépp Tawfekh Production nee si gunge ngir ànd ak yéen nu mu gën a muccee ayib ku si gën a bëgg ay leeral nag mën ngaa woote si numéro yi 77 251 04 05 77 251 04 05 Tawfekh Production moo leen di ñaanal màggal Touba ak jàmm di ñaanal Serigne Touba Serigne a Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér fi safina bi annani xadimu zil madina